ñaari kaala ñaari kaan ñaari kurus ñaari jaaro ba ñaari montre jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal sëñ As yàgg na leen a junj waaye tey lépp dina leer li waral mu génneeg melokaan bi tey émission bi dafa nar a neex sëriñ As dinañ waxtaan ak moom ci actualité njëkkee ko ci xat-xatu réew mi dialogue politique bi junjoon nañu ko waxoon nañu ay décision dina ci génn waaye du neex sénégalais yëpp waxoon nañu ko ñu gis ni Barthélémy Dias wuy dina Macky Sall xalifa Sall wuy dina Macky Sall sëriñ bi diggante xalifa Sall ak Macky Sall am na lum ci gis ñoom ñaar du hasard ku nekk sant Sall ñuy daje du hasard Macky Sall sonaloon xalifa Sall jékki-jékki tourné ci Ousmane Sonko tey nag sëriñ As dina ci indi ay leeral sëriñ As dina indi ay leeral ci Gaston Mbengue gannaaw ba nga xamante ni laataa sénégalais yi xam ni feebar na sëriñ As njëkk a génn déclaré feebaru benn promoteur déclaré woon ni promoteur boobu sax dina génn réew mi faju ji nes tuuti rek Gaston daal di daanu feebar génn réew mi faju sëñ As dina wax saafaray tey sëñ As Waly Seck Ameth Thiou seen coow li mi ngi gën a bëri te sëñ As yor na saafara si yor na yi sax video bi nga xamante ne ñu ngi naan génn na ci kii di Marème Faye Sall sëriñ As sénégalais dañ koo namoon te faaw tey mu génn leeral lu bari leeral ci procès Ousmane Sonko aji saar bi le 16 bi sëñ bi am na lu mu ci gis diggante wit bi ak 16 bi